ñu yabaloon ñu fi tey délégation bi ñu ànd ak sëñ Mamour Toubatul mu jiite ñu ak euh, sëñ Jili mii di sëñ Abo sëñ Ablaye Mbacke sëñ Maam Cheikh Anta ñun ñi ñëpp ñu ñëwoon ci CDD bi tey ñu amaloon ko jataay bi ak euh, le représentant du préfet waa police ñi ngi fi woon waa service d'hygiène ñi ngi fi woon waa Sonatel. waa seen o vraiment service yi nga xamante ni yëpp daal ku ni màggal di nga leen tudd parce que di nga am looy soxla ci ñoom léegi il a été à l'ordre du jour organisation màggal Daaru Salaam nuñ ko mën a defee ba mu gën mucc ay lenn bañ a manqué vraiment exposé nañ leen suñuy doléance ñoom aussi def nañu seen ay promesses commencé ko ci police ci wàllu sécurité bi mairie ci wàllu approvisionnement yu ndox bi làmp yi yi manqué yépp daal vraiment doléance yi ñoom promettre nañu ku ci nekk ci sa ci sa secteur bi nga nekk ni ñu di nga ci di nga ci di nga ci def di nga ci xar sa tànk tubéy ba mu ba mu ba mu mucc ayib waaw ci kaw loolu nag aussi ñu jàllale rek benn yóbbante boo xam ni sëñ bi daf cee insister xam naa loolu nekkul affaire de mais loolu dañuy interpeller directement le chef de l'État président de la République son excellence monsieur Macky Sall Daaru Salaam soxla nañ tali bi nga xamante ni moo jóge ca raay ba jaar ci ran ba Touba loolu moom yóbbante la direct boo xam ne sëriñ bi moo ma ko yóbbante soxla nañ tali aussi bi nga xamante ni nii moo relier armeel yi continuer ba ci boulevard bi ñuy wax ñetti poto pour mën a rejoindre Touba soxla nañ éclairage biir Daaru Salaam parce que Daaru Salaam dafa def ascension bu fulgurante ces derniers temps yi mujj yi nii ndax liggéeyu Maam Cheikh Anta fu nekk nit ñi daw nañ jóge fii mais boo xoolee ci biir sancaan yooyu insécurité totale moo fa am parce que amuñu ay lumière ndox mi ak siwu fa vraiment loolu mu nekkoon yóbbante particulier boo xamante ni nii kilifa gi moo ma ko waxoon ni ma naa ko li loolu directement ñu transmettre ko autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ci war a ñoom ñoo ci war a saytu war cee taxaw kon mu nekkoon loo xam ne yóbbante la ak euh, leneen li ñu fi waxtaanee mu jëm ci CDD bi ak ci organisation màggal Daaru Salaam bi ñuy ñaan nag ku ci nekk promesse bi nga bi nga def rek euh, nga nga tenir ko ndax euh, màggal gi moom bu jagee ñu ñëpp la jagal ndax liggéey Maam Cheikh Anta bi yaatu na ndax fi mu ne ku ni Touba Daaru Salaam nga ciy teg waaw loolu moom lu lu leer la kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di lu ci kàddu yi nga xam ne lu ci lu ci mat rek suñu borom la lu ci manqué wax dëgg yàlla suñu jëmm ju xeetu ji ñu leen sant di leen gërëm. salaamaaleykum. waaw loolu moom euh, mbirum wér-gu-yaram gi ku ne xam na ni fi mu nekk nii dañoo nekk ci conceptu pandémie ci lañ nekk te it c'est évident waaye comme boo xoolee daaw màggalu daaru salaam dañ koo def ci li ñuy wax sobriété totale suivre euh, li nga xamante ni nii jamono boobu moo imposé woon ba woote wuñ ko dañ ñëwoon ku nekk nañ ko def waaye comme ñun aussi dañoo nekk ci ab république di suivre ay décret di dund ci ay décret yi ñuy yëkkati ak levé mosuñoo braver lenn comme vraiment levé nañu nit ñëpp génn nañ ñun tam ñu woote waaye terewul tamit lépp la nga xamante ni nii rek moo jëm ci fàggu teef dégg nga ko ci CRD bi dañ ci dañ ci insister ci li nga xamante ne ni moo concerné médecin chef de district bi pour vraiment ñu approvisionner ñu en masque en gel nit ñi tamit dinañ def ay barrières ci mbooloo bi dinañ jéem a insister ci du ma ni distanciation sociale waaye nit ñi ci seen jëmmi bopp ñu xam ni ci concept pandémie lañ ne te ñu bàyyi xel bu baax a baax. non en français keneen mooy def discours. waaw cérémonie officielle nag aussi mooy li nga xamante ni nii daal moom lañ jot ndigal nii duñ ko def ren mais à part loolu moom ñu ngi woo ñëpp ci màggal gi comme ni ko sëñ bi waxee ñu màggal ko ba mu mel ni màggal gi sëñ gaawaan njëkk a màggal bi sëñ Tuubaa di jóge ci géej